ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha Tine dóor na a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñaar xeex nañu ñoom leen nuyu bu baax a baax yéen internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV Mansour boo gisee fi ñu nekk nag mooy aéroport AIBD aéroport international Blaise Diagne ñun nar a ñëw nag dalal si beneen daanaan ah ndaanaanu làmb di champion jóge ba France demoon fa entraînement waaye tey ji nag day ñëw fii ci suñu gaal Mansour dañuy daal di dugg rek xool ban champion la ah. ñu dem muñ na la ba léegi doyoon na bu gaa yi wootee boo gisee mbokk yi di nga xam kan lañu gis Père Bour Khane sama papa dama lay nuyu maa ngi lay fay Fatou teg la aéroport ngay dalal champion bi onze bi kalimati lay taamaati ñu sérima xalax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bàyyi laay ak séedi ñu ngi nuyu waa Leewtoo yëpp jiital ci directeur général Pape Thialis di wax alhamdulilah rabbil alamin mi nga xamante ni situation yi amoon yëpp décanté na ko ñaari parti yëpp jiwoon naa ak ñoom ki nga xam ne nag moom la engagé woon muy booy ñaamu demoon na ji moo ñëw tey parce que xam na ni am na ay prestation yoo xam ne war na ko def mu ne bokkoon ci contrat bi moom ak euh, promoteur bi tey jii la war a egsi egsi na sax d'ailleurs si quinze heures quatorze heures lañu ñu waxoon mais formalité yeeg yooyu mooy tax sortie bi di xaw a yéex waaye tey daal loolu moo ñu indi aéroport teeru si champion. comme dama lay dénk kàddu bi dañuy xaar booy ñaa génn nga wax ma état de forme bi sa plan yor nan nga ko gisee. dénk naa ot kàddu non état de forme man gis naa ko avant. dafa waaw mais dama ko doon suivre loolu sax mën na nekk mais dama ko doon suivre même bi mu nekkee si foofu parce que am na yoo xam ne su ma ko soxlaa man dama koy laaj moom mu won ma ko si par xam nga ak techno nouvelle technologie non face to face bi moom xam nga ñaari mbër yi dañu bëgg li nga xam ne moo yàqu woon ñu réparé ko te it ñaari mbër yu fair play lañ nag wax dëgg yàlla. xëy na peut-être seen accompagnant yi ñoom ñoo violent mais ñoom ñaar meluñu ko te xam naa ne bii euh, bëgg nañu rectifier lu bari daal. dégg baa génn de ah Mansour kee di génn ne dafa mel ni booy ñaar la de càppaa coole bi borom xeeru fajar wow kong bu jeexee jeex na maalaw tàmm nga lu bon lu bon nga tàmm <laughs> mu ngi noonu ah càppaa coole bi bu jeexee jeex na nga ne ah Mansour. <laughs> gan ngaa ngi noonu de bàyyi ko bàyyi ko mu def affaire mbërëm du mën a ñàkk gis nga affaire mbër bi du mën a ñaak du mën a ñàkk du mën a ñàkk Mansour li ko laaj du bés bu ndaw du mën a gis nga de boo ñaa ngi sëlmu Mansour Mansour wàcc aéroport la wàcc aéroport la day dem de tànk bee gaaw nag per bu xam jàppal ma ko eh ñu dalal ko jàmm naan ko bienvenue Massa Thiono dama lay nuyu bu baax. waaw maa lay nuyu bu baax sant yàlla jus yonent bi sant suñu ay ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikhna Sessor Abi waa kër Cheikhna Wuld Maamin di nuyu sama fans yi soo mbokk yi ma am di jàmm yi di sant yàlla ba ñu demee ci jàmm ñu ñëw ci jàmm bu baax fekk fi ñëpp ci jàmm ñu sant yàlla bu baax baax. nga wàcc aéroport bi rek gis mbokk yëpp teew lan nga yëg. waaw waaw waaw parce que xaw nañu mis loolu parce que ñii ñoo man ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sama lépp lañ si lu ma nekk ñu ngi ci ba may dem ñoom ñoo ma yóbbu ñu dem liggéey ba ma ñëwee tamit ñu ñëw jël si ma incha allah comme ni ñu koy defee waaw ñu ngi koy ñu ngi leen di sant di leen gërëm baax di leen ñaanal jàmm sama papa Bourkhane gis nga ko maa ngi koy nuy bu baax a baax père xës gis nga ak ñi ci des moom mooy mafia bi rek capacité yi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuy suñu famille di leen sant bu baax di nuy fu ma jógee muy waa France. ci loolu laa la. waaw coupe bi indi ana coupe bi waaw dama nekkoon euh, ci benn centre de lutte bu ñuy wax Tourcoing benn centre bu mag bu ñuy wax Tourcoing muy muy première euh, centre de lutte boo xam ne moo nekk France ma dem fa di fa entraîné di waaye sama combat ñu jox ma nag benn trophée boo xam ne trophée d' encouragement la trophée de satisfaction la le fait que moment moo fa dem yëpp entraînement yi mu fa entraîné lu ma teg lu ma teg lu neex ma ma ma suggéré ko le fait que bëgg naa dara moo tax may ñibbi nag ñu jox ma trophée bi ne pour ma xoolee leen ko aussi ñu remercier ma ci le fait que nu ma nekkee xem naa ko sax mais nu ma nekkee bañkat nu ma nekk entraînement la fekk lépp lu ñu may teg genre genre encouragement daal ñu jox ma ko ma leen koy xoolee aussi maa ngi koy nuyu bu baax waa yëpp grâce course recourse Racine maa ngi koy nuyu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak ñëpp ñoo xam ñu ngi woon France di ma jàppale ci entraînement yi commando Eric ñëpp maa leen nuyu di wax ne gis naa taxawaay bi sama mag Pa As Seck maa ngi koy nuyu bu baax Lamine Seck moo VIP kët maa ngi nuyu sama gaay yëpp gis naa taxawaay bu baax a baax mais coupe bi boobu la trophée d'encouragement la trophée boo xam ne ñu ma ko jox man lu ma jigee sax par rapport ak trophée mooy la fait que ñu gën ma ñaax rek ma war a yokk jom yokk fula yokk fayda mhm. maasu neen Turquie nga demoon wala France xam moom bopp bi dafa waaw man fépp laa dem man moom mooy loolu gars yi ñoom père bu xaar ñoom père xës ak yéen ak sama papa ñeneen ak ñeneen entre <laughs> bu entraînement jotee dañ may wax demal fii demal fii man fépp laay dem l'essentiel daal li am solo mooy dem naa liggéey maa ngi ñaan suñu borom ma ñu tanak fekkee di remercier Pape Thialis le fait que mu officialiser combat bi yàqamti woon nañ ko trop parce que xaar bi yàggoon na ñu koy remercier bu baax baax di wax ne nag fi mu toll nii comme ni ñuy wax rek les dés les dés sont ñu liggéey ñu jëflante maag waa ji incha allah ñaan suñu borom ñu defal ñu ndam incha allah. ñu jàppoon ne Boy Niang tukki bi mu tukki xeex dafa doon jàng wala muscle ak trophée bi boo Niang mu ngi def contact. waa man lépp laay def man su ma tukkee du ma baadewu la parce que dama war a jàng xeex wala dama war a jàng bëre man lépp laay jàng parce que mooy loolu quoi bëre moom mouvement d'ensemble la da ngay bëre di xeex di def lépp am condition physique am cardio di def lépp ñu lépp lan doon def. dafa ñu entraîné wu ñu le fait pour Tapha Tine mais dañuy entraîné pour suñu carrière suñu amee combat dañuy waxtaan ñu war a waxtaan ak génn dem liggéey ñoo def flag fight ak waaw ah, parce que combat bi moo jar lool combat bi moo jar buñ ko ñaan ñu ko yàlla buñ ko ajaatoon dañuy Dakar bii dem liggéey waat combat loolu loolu entraîné par rapport ngay bëreeg mbër boo xam ne luur la mhm. ñu jàpp ne moo la ëpp ci taay mhm. lan nga doon entraîné non ñun ñun xamewuñ luur ak leer parce que da jàng ñu bëre fu ñu war a jàngee suñu ay pap mbër dañu suñu ay nijaay mbër dañu ay nitu làmb ñoo nekk suñu ginnaaw dafa fekk nga rëy war a nga ponkal loolu suñu yoon ne luy am solo mooy ñu pare entraîné quitte avec notre conscience xam ne entraîné nañ liggéey nañ bu ñëwee ñu def fulaak faayda waxtaan bi nag mënul yaatu fii xam nga sa yaram dafa tàng maa ngi ñëpp. Ah, bul dagagum ñëw ñëw nga ñëw nga Sénégal fu mu nekk nii. entraînement bi da ngay dem salle kese wala da ngay boole ñaar yëpp. waaw laaj nga ma ko ñaari yoon man la lépp laay def ñun. fii lépp la ñuy def. lépp la ñuy def ñun duñ bàyyi dara liggéey bi benn partie bi lañ defoon foofu dañuy yàggale beneen partie bi fii incha a mhm. yàgg dara ñu naan le 19 ñu naan le 21 lan ngay waajal sa diggante. waaw face to face bi avant tout remercier waat Pape Thiage ci aboutissement wu bi face to face bi le 21 novembre la incha allah ñun càppaa cure xam nga moom gars du duñ des ginnaaw incha allah mais nag di leen gën a woo ci non violence xam nga jàmb ñu xam ne li war a jëflante wala ñu war a xeex man ak Tapha la incha allah rabi. waaw comme loolu rek. jàmm ak salaam combat bi gis na début bi mu am ay violence di wax gars yi bu ñu jaaxle bu ñu jaaxle waaw mbër bi dem na liggéey ñëw incha allah amul ay xeex maa moom ñooy xeex ñooy jëflante ñooy waaw bu jeexee jeex na jàmm ci ñëpp waaw moom du ma wax dara incha allah RV rek incha allah 19 décembre dal jàmm. leer dal jàmm. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf. attention Sa ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy daan na